alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa ta'ala moom nga xam ni moo ñu jaamuloo sant ñu jaamu ko ci joxe julli yi nga xam ni mooy julli juróom mu des képp koo xam ni joxe na ko ni mu ko war a joxe tam mooy niñ ko ko digalee mu roy ko ci yorante bi sallallahu alayhi wa sallam na mu daan julle muy jullee noonu dana am yool dana am tuyaaba ju tolloog juróom fukki julli loolu nag borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ñu ko defal ngir ak ngëneelam ak ak tabam mu def julli juróom yooyu itam muy far bàkkaar yi nga xam ni doomu aadama bi dana ko def ci diggante julli ak moroomam su jullee suba ba ba muy julli tisbaar wala bu jullee tisbaar ba ba muy julli tàkkusaan wala bu jullee tàkkusaan ba ba muy julli timis wala bu jullee timis ba ba muy julli gee diggante yooyu yépp mboolem bàkkaar yu ndaw yi nga xam ni dana ko def su ko yëgeeg su ko yëgut borom bi subhaanahu wa taala ko koy faral ndax fonk googu nga xam ni fonk na ko julli yooyu di julli juróom loolu itam borom bi daf koo def ngir yërmandeem ak ñeewanteem waaye mu defal soppeem yi defal jaamam yi nga xam ni ñooy ak péeteem ñoom ñi nga xam ni gëm nañ ko nangul ko di julli ni ñu war a jullee bu ñuy julli julli googa du xat ci ñoom julli googa du mett ci ñoom waaye bànneex lay nekk ci ñoom ak ak dal ñi ngi seede ni amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg dul moom deesu ko bokkaaleeg lenn wala dara di seede ni muhammad jaamam la ndawam la yal na yàlla dolli xéewal ak mujj ci moom ak i ñoñam ak i soxaabaam ak képp ku topp seenu yoon ci ak dëggu ak rafetal ba keroog bis penc jaamu yàlla yi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla ragal yàlla mooy def ndigal yi bàyyi tere yi te loolu moo ñuy musal tey ak ëllëg di dénk suñu bopp fuñ toll nañuy bàyyi xel suñu boroom subhanahu wa taala di bari luñ koy fàttaliku waaye di bari luñ koy tudd di soññ suñu bopp di leen soññ ci topp ko waaye ci sant ko borom bi subhaanahu wa taala dafay wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko digalal sa njaboot digalal sa ñooñ julli waaye julli fokk rek nit ki jihaat ak bakkanam bëreeg bakkanam bëreeg seytaane ba buy julli xelam nekk ci la muy julli mu di ko julli ci waxtu ya di ko jullee ca jàkka ya na mu ko war a jullee loolu laaj na muñ ku muñul du ko def na mu ko war a defe borom bi subhanahu wa taala ni ko laaju ñu la wërsëg ñun ñoo lay wërsëgal ñooy wërsëgal sa njaboot waaye ñu xam ni gépp jaamu yàlla goo xam ni jaam bi mu ngi koy def na mu ko war a defee def ko imaanan waxtisaaban lam koy jural mooy ak taqwa te taqwa boobu mooy tax mu mën a am arjanna ëllëg mbokki jullit yi ñu xam ni julli borom bi subhaanahu wa def ko koo def mu nekk lu mag ci lislaam nekk benn ponk ci ponki lislaam yi nga xam ni mooy juróom nekk ñaareelu ponk ginnaaw ba nga xamee ni ñaari baati seede yi jàll na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey di ñu xamal ni doomu jaamu yàlla bu fekkoon ak jëmm la bopp ba mooy lislaam te mooy ñaari baati seede yi waaye bu fekkoon ay kenu yu koy yanu kenn la mooy julli kon julli dafa bokk ci yi nga xam ni moo gën a màgg gën a fes ci màndarga yi nga xam ni mooy wane diine lislaam waaye itam dafa nekk loo xam ni képp koo xam ni bëgg nga loo yóbbu yóbbal ëllëg mu nekk sab denc bu ëllëgee yowmal qiyaam nga fekk ko fa borom bi subhanahu wa taala julli mooy li nga xam ni moo ci gën a ëpp njariñ ginnaaw ba ñaari baat seede yi jàllee kon bonk la boo xam ni bu feddaliku la bu ñu war a bàyyi xel la julli googu nag dañ koo war di def mu ànd ak ak teewlu ak toroxlul borom bi subhanahu wa ta'ala julli ñaan la tagg borom bi subhanahu wa ta'ala sant borom bi subhaanahu wa taala lu borom bi subhaanahu wa taala waaye mbir la moo xam ni itam dafay jegeñeel jaam bi ak boroomam subhaanahu wa taala moo tax borom bi subhaanahu wa taala ba tey doon wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te lii yépp xeetam wi ñi ngi ci biir wasjud waqtarib jullilal sa borom subhaanahu wa taala jaamul sa borom subhanahu wa taala moom dong waqtarib bu ko defee nga jege sa borom subhanahu wa taala loolu ba tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko gën a leeral ni jaam bi fi nga xam ni foofu lay gën a jegee boroomam subhanahu wa taala mooy waxtu wi nga xamee ni mi ngi julli ba sujjóot foofu lay gën a jege borom bi subhanahu wa taala kon julli lu ama am solo la lu màgg la ci lislaam lu ñu war a bàyyi xel la borom bi subhaanahu wa taala ba tey di ñu ñaax di ni nañuy sàmm julli julli yi nga xam ni mooy julli juróom mu teg ca assolaatul wusta to mooy julli nga xam ni dafa nekk ci digg bi jullik suba ak tisbaar ñoo ko jiitu jullik tàkkusaan waa jullik timis ak gee daal topp mu nekk ci diggante bi borom bi subhaanahu wa taala di ñu ñaax nañ ko wattu nañ ko bàyyi xel nañ ko fonk te di ko def niñ ko war a defee te di ko defe itam ca mbooloo ma toroxlul borom bi subhaanahu wa taala nangul ko julli mooy li nga xam ni jaam bi bu ko jàngee nam ko war a jànge defe ko nam ko war a defee mu dëppoog sharia kooku de mooy ki nga xam ni moo texe tey moo texe ëllëg waaye képp koo xam ni julli yi teelu la doo xool la koy yàq doo xool la cay farata wala la cay ay ponk doo xool jéem a jàng na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jullee nga jullee ko yow daal da koy def nu la neexee rek ak waxtu wu mu la neexee rek kooku de nañu xam ne perte na tey waaye perte na ëllëg te leneen lu dul julli moom taxul ñuy wax parce que julli moom képp koo xam ni fonkoo ko bàyyiwoo ko xel leneen luñ la wax ni fonk nga ko waalo bàyyi nga ko xel dañ lay nax kon julli nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax moo xam jamono ji nekkee ci suñu jàmm am suñu wér yaram feebaruñu nekkuñu ci ay jafe-jafe wala jamono ji nga xam ni itam ñi ci ay jafe-jafe ñi ngi ci xat-xat ñi ci ak wéradi jamono ju ne julli war wàccuñu dañ koo war a def xatta bu dee jamonoy xaw nga xam ni sax ci jamonoy jàkkaarloo jàmmaarloo ak noonu lislaam yi la muy ci toolub xare bu boobaa sax julli wàccuñu kon julli du ñu wàcc benn yoon li fekk suñu xel mi ngi ànd ak ñun julli mooy li nga xam ni ci la jaam bi mën a amee ak texe tey ak ëllëg julli mooy li nga xam ni su baaxee bu ëllëgee yowmal qiyaam bu jaam bi ñëwee bañ koy la ci ay jëfam bu julli baaxee rek yeneen yi ci des yëpp incha allahu taala dafay baax waaye bu julli ga bonee yeneen julli yeneen jaamu yàlla yi ci des yëpp dafay daal di yàqu kon julli lu jara bàyyi xel la lu jara fonk la julli mooy li nga xam ni bu ko jaam bi fonkee defe ko ni mu ko war a defee mu ànd ak ragal yàlla ànd ak toroxlu loola dafay mel ni ak kóllëre goo xam ni dox na ci diggante jaam bi ak borom subhaanahu wa taala mu jéggal ko ay bàkkaar waaye defal ko ak leer defal ko ak mucc bu ëllëgee waaye képp koo xam ni itam sàggane nga ko na nga xam ni bu ëllëgee borom bi subhaanahu wa taala amul ci yow soxla du la dugal àjjana te bu ëllëgee dana la booleeg Ah, ña nga xam ni gëmuñu woon yàlla ña nga xam ni ay naafeq la ña nga xam ni bu ëllëgee ñoom ñoo sooy ñoo perte perte ga nga xam ni amul dara lu ñuy werante te mooy waa safara yàlla nañ ci yàlla musal julli jaamu yàlla yi mbir la moo xam ni dafa mel ni bu jaam bi nekkee ci ak jàggante su fekkee fonk na ko di ko def ni mu ko war a defe day mel saa bu ne demee ba nar a nekk ci ak càggante rek day ñëw nekk li nga xam ni moo koy fàttali ni nga xam ni bu doon nelaw am ab montaram mu di ko yee wala mu waxtu ñëw di ko yee julli gi noonu lay mel saa demee ba nar a tarxiis rek mooy ñëw fàttali ko tegaat ko ci yoon wi mu toppaat boroomam subhanahu wa ta'ala di ko soññ di ko ñaax ci muy tuub di dellu ci borom bi subhanahu wa ta'ala di ko bàyyi bàyyiloo xel borom bi subhanahu wa ta'ala waaye julli mooy li nga xam ni mooy laabal xolu jaam bi mooy li nga xam ni mooy laabal itam bakkanu jaam bi waaye julli mooy li nga xam ni itam mooy setal mooy laabal ruuxam waaye julli e, ni nga xamee ni noonu lay laabalee xol itam noonu lay laabalee ay cër bu ko defee day sori lépp loo xam ni ak mbon la lépp loo xam ni ay taq-taq la yoo xam ni dafay taqal e, aw ay ak ruuxam dafay tilimal aw yaramam loolu doy nañ sëkk dalil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ñu benn misaal boo xam ni misaal bu leer la boo xam ni kenn ku ne ci ñun dana ko xam mu ni ñu waaw bu amoon kenn ku ne ci yéen ci bunt këram am mbalka moo xam ni daf caa def ndox di ca sangu bis bu set mu sangu ca juróomi yoon ndax kooku xel dana nangu ni yaramam tilim taq-taq dana ca amati ñu ni ko déedéet mu ne ñu julli noonu la mel julli yi nga xam ni mooy julli juróom dafay raxas raxas jaam bi ba nga xam ni dafay set wicc ci ay bàkkaar loolu nag bàkkaar yu ndaw yi lañ ci jublu kon mbokk yi nañu fonk julli te bàyyi xel julli di wattandiku tëkk gu metti gi nga xam ni borom bi subhaanahu wa laa tëkkoo na ci ci bu ëllëgee yowmal qiyaam ña dugg safara dugg safara ñu leen di leen laaj waaw lan moo tax ngeen dugg safara maa fi saqar luy seen tont qaalu lam naku min al musallin ñun daawuñu julli borom bi subhanahu wa ba tey di tëkkoo di digle mbugal ci ñi nga xam ni ñi ngi julli waaye bu ñuy julli seen yoon nekkut ci seenub julli duñ toppatoo laab ga duñ toppatoo toroxlu ga teewlu ga waaye ponk ya dal ga nañ ko war a defe soo seen yoon nekku ci waxtu wu leen neexe la ñuy julli nee na fa waylul lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun yàlla nañ ci yàlla musal kon daal mbokk yi julli lu rëy la lu màgg la lu ñu war a bàyyi xel la ba tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu xamal julli mbooloo ni mu amee solo ak ni mu màggee ni mu ëppee julli kenn ci ñun ëppee na ko juróom ñaar fukk ak juróom-ñaari tuyaaba ñaar fukk ak juróom-ñaari daraja ba tey yonente bi sallallahu alayhi wa ci julli màgg gi nga xam ni màgg na ko mu settee ca jullig gee ak jullig suba ci mbooloo ni nga xam ni itam ab yoolam ak tuyaabaam noonu la màggee yonente bi sallallahu alayhi wa di ñu wax ni képp koo xam ne julli na julli gee ci mbooloo ca jàkka ja kooku dafa mel ni xaaju guddi gi yépp taxaw na di ko julli waaye képp koo xam ne julli na julli suba jàkka ja ca mbooloo ma kooku dafa mel ni ku fanaanee julli ba asamaan set kon loolu itam dafay wane julli gee ak julli suba ni nga xam ni itam amee na ko solla ci biir julli yooyu nga xam ne mooy julli juróom waaye sàggane ko ak wuute ko itam li ci nekk ci musiba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu xamal ni doon naa yittewoo bàyyi ba nga xam ni taxawal nañ julli ma digal benn waay ni ko jiiteel daldi di rocceeku ànd ak ay nit ñu daa di yanu ay sayu mat dem wër kër yi nga xam ni ña fa nekk ñu nga toog li jullee ci seen kër yi nanguwu ñoo dem ca jàkk ja ñu daal lakk seen kër yi ci seen kaw yàlla nañ ci yàlla musal ba tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni képp koo xam ni dégg nga nodd te demoo wuy ji nanga xam ni amuloo julli lu dul ki am ngant ngànt loolu nag ibnu abbas bañ ko laajee lan mooy ngànt loolu mu ne ñu mooy feebar wala ak ragal ragal ci sa bopp diggante fa ngay jóge ak jàkka ja xëy na am na loo fi ragal ni sa bakkan mën na fee root wala sax ci kër gi am na situation yu nekk ci kër gi yoo xam ni moo xam ku feebar la nga xam ni yaa koy toppatoo wala ca hôpital ba nga xam ni boo fàddoo mën naa am lu luñ ko war a defal te yow rek yaa ko mën a defal te boo ko deful bakkanam xaj na fa loole itam ba tey mën naa dugg ci alxawf kon loolu ñu bàyyi ci xel dafay wane itam ni nga xam ne julli mbooloo amee na ko solo ba tey nu mas'ud di ñu nettali ni yonent bi di ñu nettali ni képp koo xam ne bëgg nga ëllëg nga dajeeg sa borom subhaanahu wa taala nekk ab jullit bu gëm yàlla nekk koo xam ni borom bi dana la gërëm dana kontaan ci yow na ngay bàyyi xel julli yii di julli juróom na xam ni julli yii di julli juróom yàlla suñ borom subhaanahu wa taala moo ko yoonanal seen yonante mu nekk li nga xam ni itam même mboolem yonente yi nga xam ni jiitu woon nañ fii dafa nekkoon li nga xam ni ci seeni charia la bokkoon ci seenu yoon la bokkoon su fekkee yéen ngi jullee ci seeni biiri kër kon li nga xam ni aji wuute ji di bañ a dem ci jàkka ja noonu lay jullee ci këram na ngeen xam ni bu boobaa bàyyi ngeen sunna seen yonente sallallahu alayhi wa sallam te bu ngeen bàyyee sunna seen yonente sallallahu wa sallam da ngeen sànku da ngeen réer da ngeen bu ëllëgee mu ne amul kenn koo xam ni dana laab daa jàpp na mu war a jàppee rafetal njàpp ma daa dox jëm ca jàkka ja dul ni borom bi subhanahu wa taala dana ko defal bépp jéego boo xam ni séq na ko jëm ca jàkka ja defal ko ca xasana te mooy defal ko ca tuyaaba yëkkatil ko ca ay daraja faral ko ca ca ay bàkkaar ak i ñaawteef muy wax ni ñun de daawuñ gis ni gisoon nañ ni daal képp koo xam ni daawul nangoo dem jàkka ja dafa daan wuute julli mbooloo loola daal dafa bokkoon ci li nga xam ni képp ku ko def rek dañ daan xam ni kooku am naaféq la nekkul naaféq sax bu ñu sikki sàkk waaye dañuy xam ni kii moom naaféq bu set wicc la boo xam ni ku ñu xam ak ni nifaaqam la mu ni saxaabatul kiraam ni ñu xamee woon julli li ci nekk ak julli mbooloo ca jàkka ja nga xam ni boo feebaree wala boo amee ragal am nga ngànt waaye da daan gis koo xam ni dafa feebar feebar bu mett mu jël benn waay boo xam ni dana jël loxo nday jooram teg ci mbagg mi jël loxo càmmooñam teg ci mbagg mi nga xam ni mënut a dox ñuy ànd ak moom di ko watat di ko diri ba ca jàkka ja ñëw moom ba ca sàppe ba ñu teg ko fa ngir tuyaaba ak màggaay bi nga xam ni xam na ni julli noonu la amee solo waaye defe ko ca jàkka ja ca mbooloo ma ni mu am a solo kon war nañoo bàyyi xel ci soxaabatul kiraam roy leen ci yitte jooju nga xam ni moom lañ defoon ci julli kon nañuy gaaw jëm ci joxe julli ca waxtu wa defe ko nañ ko war a defe sellalal ko borom bi subhanahu wa ta'ala ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu nettali di ñu xamal ni li dox suñu diggante ak shirk te mooy bokkaale ak kéefar mooy julli képp koo xam ni rek nanguwoo julli doo julli ak yéefar nga amul dara lu ñuy sikk sàkka wala lu ñuy ragal kon li dox suñu diggante ak mushrikuun yi ak kuffaar yi mooy julli wolof sax dafa bañ bañ na kii ab jullit la kon ku dul doo jullit kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax kenn ku amum xel dana gërëm dana d'accord ñu boole ko ci yéefar yi ndax dana bëgg bu ëllëgee ak mujjam nekk safara ndax kenn ku nekk ñun war naa euh, bàyyi xel li nekk ci bàyyi julli li nekk ci wedd julli moo xam bi muy tund la wala bi mu faatoo yi nga xam ni moo ciy topp ki nga xam ni nanguta julli dafa weddi julli kooku kenn waru koo def ab àndandoo kenn warta dëkk ak moom kenn waru koo may ci jullit ñu jigéen ñi kooku bu faatoo waree su koo sang waree su koo jullee waree koo denc ci armeelu jullit ñi ay mbokk jege ñaaleem itam duñ ko doon kooku daal dañuy jàpp ne ku murtat la ku génn ci lislaam la yow mi nga xam ni dangaa bàyyi julli dangaa nanguta julli déglul xissa bi déglul nettali bii ñu lay nettali kenn ci ñi nga xam ni dañuy sang dañuy sang néew mooy nettali nii dafa am benn bis ñu indil ñi ñaari néew yoo xam ne dañ leen a war a sang kenn ki ab waxambaane la boo xam ne mi ngi am 14 ans fukki at ak ñeent kenn ki mi ngi am juróom benn fukki at nee na mboolem sangkat yi daal di gaaw dem ci waxambaane bi ci xale booba dem sangu ko nee na ñu sang ko sangu ko waaye ci biir loolu yépp ñi ngi gis ci moom màndarga moo xam ni màndargam mujj gu rafet la xet gu neex di génn ci moom melokaan yu rafet akuk dal akuk teey nekk ci moom nee na ba noppee ñu laaj waajuram ni ko waaw kii moom lan mooy ay mbiram mun leen kii de ku fonkoon julli la daawu ko sàggane daawu ko jaaxaane daawu ko booleeg dara rawatina nag jullik fajar gi nga xam ni moo gën a jafe ci julli yi rawatina ci waxtu yi ñu toll nga xam ni waxtu seddaay la mu ni musta bàyyi julli genn julli jullik fajar sax musta ñàkk julli fajar te mbooloo ma lu dul keroog bi nga xamee ni mi ngi toll ci sukuraat allahu akbar moo tax màndargam mu rafet mii nekk ci moom waaye nee na biñ noppee ñu dem ci mag moomu nga xam ne amoon na juróom benn fukki at nee na mboolem sangkat yi ñépp daal di gàntal nanguwuñu koo sang ndax màndarga mu ñaaw mujj gu ñaaw gi nekk ci moom xet gu naqari gu bon gu xasaw gi génn ci moom nga xam ni kenn euh, bëggu koo jege nee na ñépp dem ba mu des man ma dimbandikoo sama borom subhanahu wa taala daat koy sang ba ma ko sangee ba noppi ma laaj ak ay ñoñom ni leen waaw kii lan moo nekkoon mbiram ñu ni ko kii de daawut julli jumaa daawut julli daawut dem te jàkk ja fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon lii daf ñuy xamal ni julli suñu bëggee am ndam am ndimbal ci suñuy noon waaye suñu bëggee am texe tey ak ëllëg nañuy fonk julli di ko def nañ ko war a defee ca jàkka ja mu ànd ak toroxlu ànd ak ak sellal ànd ak teewlu bu ko defee bu ëllëgee ñu mën a bokk ci ñi nga xam ni borom bi dana leen may mujj gi rafet te dana leen gërëm boole leen ci waa aljanna yàlla nañu ko yàlla defal hada wa sallu wa sallimu ala man amarakum allahu bisolaati alayhi fi muhkami tanzil faqad jalla min qailin subhanah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qaala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salaatan waahida sallallahu alayhi biha ashra allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa baarik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama baarakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin allahuma aslih haala almuslimin wa allif bayna qulubihim wa alhimhum rushdahum wa alhimu alkhayra walrashad wansurhum ala a'daika ya karim allahuma inna nasaluka alafwa walafiyata fi dunya walakhira allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walafafa walghina rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghayra dallin wala mudillin allahumma ja'alna min al musallin allahumma ja'alna min al musallin allahumma ja'alna min al musallin wa thabbitna ala hadi khayri al mursalin